ñëpp asthme ñun suñu doom yi dañu asthme donc képp ku woote ni que nañu defar réew mi na set na baax dañ ciy def suñu loxo jàpp si. Mhm. moo tax au début ma ni buñ ko politiser parce que day freiner ñi bëgg ñëw. Mhm. parce que man je suis pas de Pastef je mettrai pas un t mais wóor na ma ni biir Pastef doo fa fekk ku ma gën a bëgg réew mi. dëgg la alors Ngoné dañuy dugg assemblée nationale wax ci li nga xamante ni moo di attente bi ñëpp am ci li nga xamante ni moo di déclaration de politique générale bi nga xamante ni le moom moo ko. baaxoo di def euh, devant des députés euh, wax ci li nga xamante ne également loolu mooy seen projection future mais euh, pëccuxoo bi am à l'Assemblée nationale coppite yi am ci li nga xamante ni moo di règlement intérieur yi ak yu ni mel tax ba ku mel ni le PM bi muy tontu bataaxal bi nga xamante ni loolu député Guy Marius Sagna jagleloon na ko ci moom. xawalaale xawaale la ki tontuwaale assemblée nationale du moins en tout cas loolu mooy jàpp bi nga xamante ni les députés l' assemblée nationale rawatina ñi nga xam ne ñooy la majorité eh, di eh, waa benn bokk yaakaar am nañ ci boobu la déggee jàpp ni à travers li nga xamante ni cette réponse tontuwaale na leen ñoom député yi eh, mu wax ni daal bu dee yooyu la coppite indi wuñ ko ci fii ba le 15 juillet moom dina amal ab déclaration de politique générale mais loolu ci kanamu askan bi la koy defee devant des étudiants ak ñeneen ak ñeneen ak le 15 juillet 15 juillet nag li ci jàllagul ci diggante bi nag ñi ngi dégg ñu ne yenn député dugal nañu ngir ñu revoir li nga xamante ni moom moo di réglement intérieur yu assemblée de ce fait moom mu mën a ñëw à l'assemblée l'honorable député Abdou Bara Dolly euh, dugal na li nga xamante ni moom moo di ab proposition euh, l'honorable député également euh, sama sant Thiam fàtte naa tur bi moom également def na pareil ndax jàpp nga ni ci diir bu gàtt boobu mën nañ cee yegg ci boobu les modifications benn ñaareel bi naka nga gisee tey ji tontu boobu nga xamante ni moom le PM Ousmane Sonko def na ko ak la date du 15 bi nga xamante ni jàpp na ko ba mu créé benn maire bu futt ci la majorité ba sax ñu décidé woon suspendre li nga xamante moo di travaux fa fas yéene woon amal. gis naa ni PM moom dafa natt 15 bi sax anniversaire waaw. <laughs> anniversaire waaw mais bon alors honorable député Ismaïla Diallo toog na fi nga toog ni ma 15 juillet moom mooy datu anniversaire. waaw mën nga ko yëgal sax yëguma ko. waaw gis naa ni am nañu activité au Grand Théâtre on espère juste que du du pour def DPG. Mm. parce que en fait lu tax may wax loolu mooy dëgg la ni règlement intérieur assemblée nationale dañ ko war a xoolaat. mais man dama ne euh, et je crois que sama camarade yi nga xam ne ñoom la yàlla def ñu nekk député à l'Assemblée ku mel ni Abba Mbaye il a il a dit chose que règlement intérieur bi waruñu ko xoolaat rek ci benn pàcc mooy présence su président euh, PM euh, au niveau de l'Assemblée il faut que ñu xool ko globalement ba nga xam ni bu ñu jógee ci lii dootuñu am problème mu règlement intérieur parce que déjà ñoom dénoncé nañ la fait que tey ñoom ils sont 18 non inscrits te mënuñu am groupe parlementaire parce que règlement intérieur bi bi muy régler problème mu Modou Diagne ab Ablaye Wade dafa ne député bu démissionné ci groupe parlementaire doo mën a bokkaat ci beneen doo mën a constituer doo mën a constituer groupe parlementaire et pour la première fois assemblée nationale am dix 18 non inscrits donc point boobu dañ ko war a xool deuxième beneen bi mooy gisoon nañu ni que pré président de l' assemblée nationale dafa am mandat 5 ans bureau bi am un an renouvelable. un an boo xam dañ koy renouveler chaque fois donc euh, loolu tamit ñu war a xeex nu ñuy def ba xool ba xam nu ñuy méngalee mandat wu bureau bi ak mandat wu président assemblée nationale. ak yeneen ak yeneen yu baree bari yoo xam ni ay rëkk-rëkk la ci règlement intérieur ñu fexe ba règlement intérieur u assemblée nationale comme suñu constitution bañ a nekk loo xam ni ku ñëw rek xool ni nga sa jëmm toll bu yaatoo nga taawi ko ba mu jot la. bu dee euh, jëmm ji dafa tuuti nga delloowaat règlement bi ba mu méngoowaat ak ci yow sa à dire ñu xam ni règlement intérieur bi mooy règlement intérieur wu ëtt bi nga xam ni moo ñu teewal ñun suñ moo ñu yoral suñu baat ñun askan wi mm-hmm. donc mu méngoog tamit suñuy gis-gis mm-hmm. ñu bañ ko def règlement intérieur pour régler tout le temps euh, des problèmes ponctuels mm-hmm. et politiques beneen affaire bi mooy la réponse du PM mmh. Euh, je crois que autant il la raison su les délais qui ne sont pas précisés dans le règlement interne de l'Assemblée nationale autant il a eu de diir que dina ko def ci mbedd mi parce que bu ko règlement bu ko constitution waxul fan la délai bi yam constitution boobu daf ko wax fan la ko war a defee donc moom déjà foog mu xam ni constitution dafa nekk ci kawam nekk ci kaw règlement intérieur c'est pas le contraire du moom moo yilif constitution wala règlement intérieur moo yilif constitution moom la constitution ak règlement intérieur yilif constitution boobu muy charte réew mi moo ko wax ni ko yow premier ministre bu ñu la gannaaw bañ la falee ba pare assemble nationale ngay demee defee fa sa DPG donte wax ko nag ñaata fan la ko yemal loolu benn la. ñaareel bi ñu liir ko moom ci ni mu waxee sax mu ne defee ko ci mbedd mi sax xëy na dina gën ndax ñi ci mbedd mi ñoo gën a crédible ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir assemblée nationale. ñu gis keneen waxee noonu muy Mimi muy euh, loo xam ni. Euh, c'est-à-dire Mimi sax def ci commentaire dafay dafay dafay loolu mais PM par ah, exemple. Ah, mais pourquoi def ci commentaire. non c'est-à-dire Mimi quand elle dit ça alors qu'elle s'est battue pour présider cette assemblée qu'elle est en train d'insulter aujourd'hui cest dire dafa dafa dégoûtant moo tax def ci commentaire. dafay moo tax ku mel ni Bougane traité ko de traître. non xam nga Bougane Bougane sax nekkuloon ci assemblée ba di xeex pour bokk ci mais Mimi Touré lim ko jaraloon ak lim ci daj tey bu ñu ko joxoon présidence assemblée nationale du wax li mu wax donc moo tax ma ne sànq suñu li suñu responsable politique itam il faut que ñu respecté ñu. il faut ñu respecte ñu mënuñu ñu jàpp ñun en fonction de seen seen ay bëgg-bëgg du moment c'est-à-dire à l'air du temps c'est pas possible il faut ñu nekk ay nit yoo xam ne tamit dañuy am conviction li ñuy défendre ñu gëm ko mais di défendre loo xam ne yow c'est en fonction di que poste bi nga bëgg wala euh, privilège yi ñu ciy am c'était mi c'est c'est quelqu'un boo xam ni vraiment euh, nekk na fi garde des nekk na fi premier ministre lu nekk nekk na ko fi ci réew mi am na yu bëri yoo xam ne war na ko jommale boppam sax jox na ko explication yëg nga loolu moom Mimi Touré waaw gis naa boobu pour revenir par rapport ak euh, euh, tontu PM teeral foofu rapidement balaa ñuy balaa balaa ñuy jóge ci balaa ñuy jóge ci tontu PM c'est-à-dire li tax mu xaw a mu xaw a metti mooy il faut PM xam ni il n'a pas le droit d'opposer du mépris à l'Assemblée nationale parce que gis nga assemblée nationale c' est l' émanation du peuple ñi fa nekk teguñu fa seen bopp euh, te bu defee mépris bu bu bu bu wanewee mépris à l' de l' assemblée c' bàyyi ci kenn même député yi mu àndaloon ci yeew yi ñu falu ci lañ bokk de parce que boo nee les députés de l' assemblée bàyyi woo kenn ñoom ñëpp nga ci boole donc amul droit am mépris boobu à leur endroit donc dañuy wax ni que fii ak le man xaw ma quels sont les de l' assemblée gisuma tam benn volonté bu jëm ci quinze jot na ba pare c'est dans une semaine bu jëm ci vraiment que réglement intérieur bi ñu xool ko en mode fast track maintenant ndax ñoom seen caprice politicien daf ñuy yóbbu ci situation boo xam ne day nekk kenn du ko mën a gérer mooy PM moom. def ay caprice am ni boo leen deful nangam ñëwuma ñee tam yor seen majorité def caprice ni ko defuñu ko boo ñëwul ñu dinañ la bloqué ba doo leen mën tas assemblée bi ñun pendant ce temps ñun ñu nekk ci diggante bi muy la peuple sénégalais nous allons trinquer et PM bu defee DPG defalu ko député assemblée ak benn bokk yaakaar defal na ko askanu Sénégal ndax ñun ñi nga xam ni donte man damay dégg ñu ne ñun 54 virgule 6 si non le président de la république 54 virgule 6 c'est l'électorat du de sénégalais yi nanga xam ne ñu ngi biir Sénégal te voté wuñu ñoo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoo voté ñoo voté Diomaye c'est-à-dire ñi nga xam ne amuñu woon âge voté wala jotuñu voté donc ce qui veut dire que aujourd'hui le président de la République PM am mhm. dafa am obligation jàkkaarloog ñi ko voteel ñi ko votelul woon ñi jotul a voté ñi amul woon âge voté wax ñu fu mu jëm a gaal gi ak fan la bëgg a teereeg ñoom. Mhm. dissolution bi ñenn yi dëroo ma laat jàpp nga ni war na a mun a jëm ci li nga xamante ni moom mooy dissolution assemblée nationale que le moment soit opportun ou pas, c'est les textes qui lui autorisent à dissoudre l'Assemblée dès deux le mois de septembre quand oui. il aura deux ans. Maintenant, si entre-temps, fi am ci un ñoom ñoo koy xool Mais loolu le texte est comme ça. Et je crois que nous, ci Sénégal, nous avons élection 2022 législative, nous savons que si Fallo a l'Assemblée TAS, si euh, candidat passé Fallo Assemblée TAS, bu Khalifa Sall fal woon assemblée tas. député de wuñ ci bàyyi ki nga xamante ne moo di président ndax gis nga nee nañu mënees nañoo jëm ci ab proposition bi nga xamante ne indi ay coppite de ce fait président euh, du am dootu amati. Euh, pouvoir wu dissoudre assemblée saa yu ko neexee waaye tamit ñoom également dootuñu mën a ci imposer li nga xamante ni moo di ab motion de censure waaw xam nga ñoom c'est une réponse politique rek qu'ils apportent au PM parce que PM daf ñoom tam ñu ne dañuy fay dañuy defante moom laay wax sànq ni seen ñaari caprice yi pendant ce temps nous le peuple on va trinquer et xajul ci ñun xaju ci ñun dans la mesure où dañu def 4 ans ci ginnaaw yoo xam ni réew mi jaxasoo na jaxasoo boo xam ne kenn xamul foo jëm donc fi ñu jëmaat ci kanam dañu bëgg loo dalal suñu xel dañu bëgg lu dalal réew mi donc ñoom ñaar ñëpp ku nekk war na mën a xool. parce que ñoom fi ñu gisee moo di ñoom nee nañu askan bi ñoo leen tabb indi leen assemblée boobule askan moo tabb le président Bassirou Diomaye Faye alors que le PM moom dañuy lay juste été nominé. non là à ce niveau ils ont raison parce que ñoom ils ont été élus pour cinq ans tout comme le président de la République ñi leen faloon juróomi at lañ leen wóolu fal leen mais ñi leen euh, charte ni euh, nga loi wu réew mi tam. moo may président ni ko boo amee bu man bu euh, mandat wu député yi amee ñaari at mën nga koo tas donc ñoom bu fekkee dañoo am possibilité changer loi boobu buñ ko changer bon c'est compliqué ah quelque part aussi parce que. mais ñoom aussi s'il minimise le PM comme ça pour rappeler que ni il a été nommé est-ce que loolu tamit du gën a compliqué li nga xamante ni moom. non minimiser wuñu ko xëy na dañuy fayonte moom laa lay wax sànq ma ni fayonte ñaari institution yooyu muy l'exécutif ak le législatif moo jigul ñun le peuple. cest à jiguñu et ñun ci ki ñuy xaar mu jël hauteur am plus de lucidité faire preuve de tenue et de retenue c'est le PM mm-hmm. moom la ñuy xaar parce que barki Demba Ndiaye yàlla daf ko teral benn bu la suñu borom teralee mën nga ko delloo njukkal lu dul ci jéggale ak woyefal man loolu laa jàpp yàlla da ko teral dama la wax sànq ni la mag yi daf ko tere bokk présidentielle. mu joxoñ nit koo xam ni du parcours politique bi du offre politique gisuñu lan la ëppale woon benn ci 19 candidats yi suñu borom yëkkati ko fal ko ci fal bu rafet bu mu mësta fal nawleen waa kooku lu ko yàlla desel mais ne yéen aussi seen député yi am nañu part de responsabilité ci la am nii d'accord te yàgg nañ dégg yéen ci ñenn ci ay député ñuy euh, ñaawlu euh, di wax également euh, li nga xamante ni moom moo di règlement intérieur u assemblée nationale baaxul ak yoon mi di ko clamer askan bi mais pourtant est taxawaay bi ci war a am euh, seen i député ak yeneen député yi ñoom ñu nekk ñëpp ci quatorzième législature bi ndax amu nañ ko dëgg dëgg dëgg balaa ñu yegg si fi ñuy non député yi yàgg nañ ko naka la ñu waree ci ab règlement bi nga xamante ni ñoom xam nañu ni bi def règlement du règlement bi nga xam mu dëpp ak yoon xam nga député yàgg nañ ko wax depuis installation bi règlement intérieur bi mais yéen ñëpp gis ngeen ni que depuis boobu forcing moom assemblée je veux par là ndax ni ñu waroon ne war a mën a mëne boobule combat mais mëne combat weesuwul weesuwul ñuy installé président non mëne combat weesuwul ñuy installé président assemblée nationale indi gendarmerie ci biir chaque fois da ngay gis chaque fois que mu vote am vote coow am gendarmerie dugg biir assemblée nationale député yi li ñu mënoon ci wax ko ci bind ko ci kaas ko ci même jël ay pupitre gàddu lu ne def nañ ko ci biir assemblée bi gendarmerie ñëw def nañ ko léegi tey xëy na dafa jot. mais boobu les combats poursuivre ñu ko à long terme. a une cassure aussi. après bi mu leen arrangé dañ doon wéy ak li nga xamante ni moo bi mu leen arrangé xëy na dañu xëy tokki dañu xëy tokki parce que à un moment donné les gens se disaient mais nañ nga xamante ne askan bi ñoo leen fa teg ñu ngi. waaw moom laa wax moo tax ne xëy na dañu xëy tokki mais tu te dis aussi que à un moment dafa am moment wu vacances bi am moment bi nga xam ne tamit ils se disent euh, il y aura un nouveau régime de façon ñii dañuy dem donc euh, bàyyi leen ñu coow coow li dañuy dem yu bëri ci paramètres yi nga xam ne am na actuellement doo ko jël en compte mais moo tax ma ne la définitivement dañu war a régler problème mu règlement intérieur définitivement du pour Ousmane du pour Diomaye du pour opposition du pour pouvoir du pour majorité. en attendant que ce problème soit réglé définitivement euh, moom Sonko jàpp nga ni war na toog jël jël jël temps may député yi ñu jubbanti li nga xamante ni moom moo di assemblée bi waaw am déet wala ndax euh, jàpp nga ni bu fekkee ni tamit moom it jox na leen li nga xamante ni moom moo di ultimatum bu date bi matewul war na war a mun a amal li nga xamante ni moo di DPGM ni ki le 15 juillet. moom dès la mesure dans la wax na dès wax na ni que pour lépp DPGM pare na à sa place dinaa dem assemblée def sama DPG décliner sama en tout cas sama vision. li ci des muy assemblée nationale nan lay régler règlement intérieur am. comme ñu jàpp ni lii yëpp lii yëpp stratégie la gagner du temps parce que dañoo bëgg xaar ba ñu dissoudre assemblée nationale ñu am fa li nga xamante ni moo di majorité mu doog ñu amal li xamante ni moo di déclaration. mais ça veut dire ko def lu dul 2025 DPG boobu tey jii man dama ne su doon maay Ousmane damay dem assemblée nationale décliner sama vision def sama DPG li des li nga xam ni moom mooy le règlement ma bàyyi assemblée nationale ak ca dul fii ba ñu koy dissoudre. bu beneen assemblée ñëwee proposer euh, règlement intérieur bu fekkee ñii balaa ñuy dem mën nañ ko def ñu def ko mais DPG bi wax naa ko encore une fois du pour waa assemblée. c'est pas pour les députés ñoom xëy na ñoom la yàlla may ñu toogal ñu fa mën ko poser question mais askan wi ñoo ko moom partenaire Sénégal yi ñoom moom DPG bi ñiy jàppale réew mi ñoom moom DPG bi foog ñu xam fu mu jëm ak ñun. Mm. c'est de tout ce qu'il s'agit il faut que moom tamit mu am loo xam ne da koy bàyyi ci jëmmam. Mm. c'est cest à euh, dafa am cër daal boo xam ne mooy cëru nju njiit. waaw cëru njiit dafa am mooy li ñuy wax ni euh, njiit du woyof euh, njiit du du du woyof waaye tamit njiit du diis donc il faut être mesuré. te boobu le diis dañ doon reproché ki nga xamante ni moo di président Macky Sall. <laughs> effectivement xam nga dañu ne njiit njiit du du du def naa du lewet la ñuy wax ba ñu mën ko wanaasu waaye du tàng tam nikaan yi ba ku ko gis ragal ko. Mhm. je crois que juste milieu bi tamit dina dina dina baax am na loo xam ne moom war na ko def. mu dellu ci ginnaaw dem def ko ci ni mu gën a rafetee et que et ñu mën a avancer si si yeneen affaire parce que ci 100 jours yi jàppal bàyyi ba teesante bi dafa ëpp lool. li nga xam ne moom la ñuy xaar ñoom ñu def ko ci jëmale ko ci askan wi. alors parlons de njiit foofee la ñuy daanelee l' actuel président de la république di la président Bassirou Diomaye Faye euh, teewee woon na li nga xamante ni moom moo di 65e sommet de la CEDEAO ni ki euh, dimanche foofee ci Abuja ñu ama fa ab dajeeb waxtaan donc ci boobu leen dajeeb waxtaan également moom sant nañ ko ngir mu euh, waxtaan ak ñi nga xamante ni moo di dëkk yu mel ni Niger euh, Burkina Mali ñi nga xamante ni dirigé par par les ñu bañ a génn ci li nga xamante ni moo di CEDEAO woon na jàpp ne buñ ci daal euh, dina am ay jafe-jafe yu bëri yu nga xamante ni mun na jural ñi nga xamante ni moom moo di askan bi yeewoo fii ci tundu Afrique mais également dina dem sax ba tey jii ku bëgg mën a circuler ci li nga xamante ni moo di espace CEDEAO di nga war a mën a am li nga xamante ni moo di visa te loolu day gën a compliqué yëf waaw loolu dina compliquer li fii dina jaxase suñu diggante ak euh, suñu dëkkandoo yi bu mel ni Mali mu jege ñu torop torop torop torop torop euh, nga xam ni benn dëkk la woon d'ailleurs Sénégal Mali Guinée euh, benn benn dëkk la woon c'est-à-dire ñun ñu demandé Mali visa gisaguma Sénégal boobu donc ça veut dire que projet boobu lu ñu war a teg ci suuf la beneen bi mooy CEDEAO moom moo war a yem ci mission économique am génn ci politique interne des pays loolu CEDEAO defe naa ni kuy wax na ko ko war nañ ko ko wax et que mu xam ni li nga xam ni mooy mission dans le cadre de l'économie mu mën ko dérouler li nga xam ni moo xew ci biir dëkk yi ci wàllu politique mu war ci am tuuti recul bàyyi tamit dëkk yi ñu doxal li nga xam ni moom mooy seen vision politique parce que dëkk yi ci bëri seen askan li ñu bëgg mooy mooy moo moo nekk li nga xam ne moo nekk ci ci ci politique euh, ki nga xam ne nekk mooy le président de la république defe naa sas bi ñu ko sas rëy na lool ni ko na dox jàmm dellu si signé gis naa ko ko ci tontu je crois que c'est le Mali moo tontu sànq pour wax ni ko seen décision si irrévocable duñ ci dellu si ginnaaw et que jarul sax muy sonal boppam et je crois que président am na lu ko doy fii ci biir réew mi buñ ko ci bëggee dolli euh, ñetti réew yooyu nga xam ni ñoom pour li ma ko waxee sànq seen seen gis-gisu askan la seen askan si boppam ñoo bëggatul que seen président yi nekk ci biir CEDEAO. tax ba ñoom sax ñu taxawal seen confédération des états sahéliens. waaw moom laa la wax ma ne askan wi seen askan si boppam ñoom ñoo bëggatul bokk gisatuñ seen bopp ci biir CEDEAO c'est pas juste les leaders que ñoom ñoo ci gisatul seen bopp mais askan wi ci boppam gisatu ci seen bopp. et je crois que loolu dafa indi tey booy suivre les plateformes da gis gis les panafricains di ñu saaga di saaga suñu président di saaga suñu PM c'est-à-dire tu te demandes même euh, quel a quel ba sax yenn activités yi les kii bay autre jàpp nii tey ji ñi jéego yu nekk di teg utewul dara ak li nga xamante ni moo di jéego yu fi Macky Sall doon teg waaw mais ñoom kii bi seba kii bi maa ngi gis sànq que la France lui a retiré sa double nationalité française mais euh, ñooñu en fait je crois que Diomaye il a plus de compte à rendre d'abord au Sénégalais avant muy wax ak ses amis panafricanistes man ça c'est sama sama sama xalaatu bopp la bon gis naa dem kenn naan que est-ce nont avec le diable mais à quel nos actuels dirigeants leur ont promis qu'ils allaient quitter, euh, en tout cas, qu'ils allaient en tout cas rejoindre euh, cette confédération des des pays du Sahel. Mm-hmm. c'est-à-dire il beaucoup de choses yoo xam ne tamit nit ñi dañ ciy wax di ci avancer te ñu xam lan mooy conséquences yi. Mm-hmm. xam nga fi léegi nañ leen fi ñu ne dañuy quitter CFA. dañuy génn monnaie CFA dañuy mm-hmm. c'est-à-dire y a plein de choses yoo xam ne Penda je crois que tamit euh, à un moment donné sénégalais yi pour ñu conserver ñun suñu stabilité réew mm-hmm. il va falloir que sur ces points là mm-hmm. qu'on patient mais très indulgent alors Ngoné ñaari laaj yu mujj ma dogal ma la bëgg dugal ci ay cas rapidement cas benn <laughs> sànq laaj naa la nga bañ ci tontu bi damay insister waat foofu coowal mi mu turee ak Mansour Faye Mansour Faye nag servir na Mimi Touré ab citation ndax jàpp na ni Mimi Touré daal la mu wax teg ko ci kàddum ci deram mi daal euh, dafa lubal euh, gestion woom ci wàllu euh, koppar yi ñu ko joxoon ci inondation beeg kopp beeg yu ni mel Mimi nag démb ci émission noonu def tontu na ni moom jàpp na